asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit ñu safoo si 313 digital le site qui vous donne des informations fiable et nettes ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen dal leen ak jàmm ci euh, xibaar yi nga xam ne euh, ñoo gën a fës euh, ci biir net bi yooyu information dañ koy daal di door rek gis nañ ki nga xam ne moom mooy Queen Biz clash bi nga xam ne doon na ko clash Youssou Ndour ginnaaw ba mu bokkee ci deux 200 meilleurs chanteurs de tous les temps moom nag gis nañ internautes yi nga xam ne doon nañ. dalee ci kawam waaye kenn ñeneen ñi nga xam ne uh, daal dinañu uh, génn mooy fansu yu uh, daal dinañu fansu yu sunduur yi daal dinañu génn daal ci kawam waaye tamit Sidath Thioune nekk animateur foofu noonu ca te ca RFM moom tamit daal dinay génn daal dal ci kawam ak ñeneen ñi nga xam daal dinañuy génn mooy les deux animatrices di Adji Mass ak ki nga xam ne moom mooy Ami Collé ñoom itamit daal dinañu euh, xas euh, ki nga xam ne mooy Queen Biz ba mu euh, ràpp ndax ñu ngi koy wax ne ko Youssou sa baay la tooñ baaxul maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy deux yi ñu ngi koy wax ne ko Youssou sa papa la en plus nekkul sa morom danga réew mu nekk ay kàddu yoo xam ñoom daal dinañ ko yëkkati seen boobu noonu émission ñu xam ne ñoom ñaar ñi ngi ko doon def kon loolu na dafa mel ni dafay wéy di am ba léegi keneen ki nga xam ne daal dinay dal Queen Biz moom itamit muy euh, Myrma nekk ab chanteuse sénégalaise moom nag euh, ma mi ngi euh, jël défense Youssou Ndour di wax kiwin nekko boo bëggee buzz demal nga wuti ko feneen si tu du buzz cherche le ailleurs mu nekk ay kàddu yi nga xam ne Myrma dal dina koy wax ci Queen Biz ginnaaw bu Youssou Ndour bokkee ci 200 000 chanteurs de tous les temps ci kanamu Bob Marley ak ki nga xam ne moom mooy Michael Michael Jackson dafa mel loolu ba léegi euh, mi ngi wéy euh, di tiré ci ki nga xam ne moom mooy euh, Queen Biz buñ jugee foofu dañuy daal di euh, dem ci euh, drame bi nga xam ne amoon na foofu noonu ca Kaffrine ñu gis ne Bougane Gueye Dany nekk le président du mouvement gëm sa bopp moom nag demoon na foofu noonu ca Kaffrine waaye tamit rawatina fi nga xam ne fa la accident bi daal di amee ñu gis ne Bougane dugg na ci oto bi dugg na ci oto bi nga xam ne ñaari oto yi nga xam ne ñoo def boobile ak accident moom Bougane ñu gis ne am na ay cliché yoo xam ne daal dinañ ko ci jël mooy ay photo photo yooyu nag ñu daal di koy jël daal di koy euh, tas ci euh, réseau sociaux yi ku nekk rek di ci euh, yëy yàbbi internautes yi nag lu nekk rek ñu ko koy wax ñu ngi koy wax ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany di ko wax ne ko yow moom Euh, yaa fekkee lépp rek nga daal di bëgg ndax fi nga xam ne euh, dem nga fa waroon na waroon ngaa dem euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo blessé wala ñi nga xam ne ñoom ñooy famille victime nga daal di leen di consoler moo gën ngay dem ci oto di xool mel ni ab enquêteur ba dem nañ sax ba di tëkkale Bougane Gueye Dany ak acteur Horatio de la série Les Experts de Miami maanaam selon internautes yi euh, Bougane Gueye Dany mi ngi mel ni espere boo xam ne expert boo xam ne dafa xam ci wàllu oto ak accident yi nga xam ne day am maanaam moom daal comme enquêteur loolu la ko internautes yi di wax internautes yi nag ku nekk rek yaa ngi ci euh, yëy yaab bi nekk photo boo xam ne euh, mu ngi viral ci réseaux sociaux yi foo dem rek dinga nga ko fekk waaye tamit commentaire yi tamit nekk na commentaire yoo xam ne boo ko déggee ay reetaan dalay def mais aussi tamit am na benn yabel boo xam ne dal di nay dugg buñ jógee foofu itamit dañuy daal di euh, dem ci keneen di euh, Miss Cash moom nag di wés turu euh, Mamadou Falilou Mbacké Ndour moom nag turu rappeur moo nekk Miss Cash nekk ab rappeur artiste rappeur bokkoon ci membre bu Akatsuki nekkoon benn groupe boo xam ne li leen lancé mooy seen son boobu noonu di wéere di doon def li nga xam ne moom mooy buzz moom nag Miss Cash daal dina fay génn daal di Euh, daal di lancé benn carrière solo wam maanaam moom gase mooy nekk euh, di way mu nekk rappeur boo xam ne kenn dootu ko euh, présenté mais aussi moom daal dinay clash ki nga xam ne moom mooy Ngaaka Blindé waaye nag boo xoolee li nga xam ne sénégalais yi bëgg nañ ko mooy que parole yi nga xam ne mu ngi koy waaye tamit instrumenta instrument yi nga xam ne mi ngi ko jël ci waayam tamit nekk na loo xam ne sénégalais yi euh, tax nañu daal di koy euh, bëgg loolu waaye tamit li nga xam ne mën na ko muy improviser maanaam mën na taxaw ni ak yow daal di improviser daal di way loolu tamit nekk talent boo xam ne moom Mitchie Cash daal di na koy am waaye ñu gis ne moom daal di nay euh, clash ki nga xam ne moom mooy Ngaaka Blindé ndax moom Mitchie mi ngi wax ne je ne le respecte par il m'a unfollow sur Instagram. am à cause de sori l'officier maanaam ki nga xam ne moom Mitch Cash mi ngi wax ne euh, Ngaaka Blindé dafa désabone respecté wu ko maanaam moom Mitch Cash nee na respecté wul ki nga xam ne moom mooy Ngaaka Blindé te Ngaaka Blindé dafa désabonné wu ci moom euh, foofu noonu ci page Instagram am loolu la daal loolu daal la daal di euh, yëkkati mais xanaa dinañ xam anam nam ñoom ñaari rappeurs yooyu noonu àndalal moo dugg seen diggante ba waral clash bi di ci am. buñ jugee foofu dañuy daal di dem ci euh, na bunduur euh, nekk euh, trondoo ci ki nga xam ne moom mooy Zeyna Ndour parce que ay rumeur dafa génnoon ñuy wax ne ki nga xam mooy Seynabou Ndour ak Zeyna Ndour ñoom ñaar duñu wax duñu laale waaye gis nañ ouverture bi nga xam ne Zeyna am na ko ci boutique am boobu noonu gis nañ Seynabou bunduur moom nag mu ngi yëkkati ay kàddu di wax ne Zeyna Ndour Zeyna Ndour euh, doomam la waaye tamit euh, xaritam la itamit euh, trondoom la te tam ngi koy ñaanal bu baax a baax réussite totale ci li nga xam ne moom mooy ci ay entreprise am lool nag Seynabou Ndour moo ko daal xamle nekk trondo homonyme ci ki nga xam ne moom mooy Zeyna Ndour nekk doom ci Viviane ak Bouba Ndour buñ jugee foofu tamit dañuy daal di dem ci ki nga xam ne euh, moom mooy ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo nag moom gis nañ ko euh, ci concert ci concert bu nga xam ne Youssou Ndour euh, doon na ko amal ndiki le set bi passé foofu noonu ca musée des civilisations noires moom nag ki nga xam ne mooy ñaaxarañ loo mi ngi wax ne Youssou Ndour tëggoon na la premier ak le set lépp mu daal di koy def guichet fermé. foofu nag ca musée des civilisations noires ñaaxarañ loo euh, mi ngi wax nag parce que dañ ko gis euh, ci kaw chaîne bi muy daal di euh, sinap moom nag mi ngi xamle ne am na ci lenn loo xam ne daal dina koy am mooy que chaîne bu ko neex mën na fa taxaw ndax foofu noonu ca chaîne bu Youssou Ndour gis nañ ne Dakar Buzz ak Seneweb amuñu foo woon sax accès kon moom na bu fa amee accès c'est parce que dafa mën li nga xam ne moom lay def ndax ñaaxarañ loo mi ngi wax ne je suis personne qui la possibilité d'accéder sur la scène de Youssou Ndour et de filmer tout ce que je veux même les grands sites même les grands sites comme Dakar Buzz et Seneweb n'y on pas accès maanaam moom ñaa xarañ loo mi ngi wax ne moom am na possibilité daal di yéeg ci euh, chaîne Youssou nduur mais nag ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy chaîne yu mag yi amuñu euh, boobu noonu accès mais aussi tamit mi ngi wax ne euh, Youssou Ndour moom tamit ñaaxarañ euh, loo mi ngi wax ne du déplacé wu mu ko foo xam ne amu fa li nga xam ne moom mooy xaalis ndax moom mi ngi wax ne même pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un on me paye maanaam même buy souhaiter nit ki happy birthday sax dañ koy fay li nga xam ne moom mooy xaalis te moom tamit mu ngi ci yokku ne bu leen fàtte ni Youssou Ndour dafa bokk ci 200 meilleurs chanteurs du monde maanaam ci monde àdduna bi yëpp mën nañ ne Youssou Ndour euh, dafa nekk koo xam ne euh, ku mën a euh, woy la kon daal mën na ci jàpp ne ñaaxaanañ loo moom du dem fenn ci zéro loolu la daal di xamle dafa mel ni fi la ñuy wàccee suñu ay kàddu di leen joxaat dig daje ni ki ëllëg ak ci yeneeni information waaye nag bu leen fàtte di abonné si 313 digital